sa baay góor jigéen la parce que cas bi sénégalais yëpp a war a booloo nekk benn aw kenn amul droit di jël góor jigéen di ko dugal sa live muy wax ñoom ñëpp xaalis lañuy jàmm sama panel bi doo leen ci mës a gis góor jigéen mu ñëw di fi wax quoi que ce soit. nee na selam yéen a dégg jéego Amérique bi. dafa ceebal influenceurs yi pour ñu nëpp nëppal affaire góor jigéen bi mais li Seneweb wax lu leer naññ la lii li Seneweb wax nii ci waxu góor jigéen yi lu leer naññ la Aziz ay góor jigéen ñoo ko rey góor jigéen bi nekk ci live yi nag di wër live bu am doole mu dugg fa moom mooy fay influenceurs yi pour ñu attaquer Seneweb ne Seneweb day fen parce que bëgguñu li nekk ci suuf feeñ te bëgguñu affaire góor jigéen bi sénégalais yi xam exactement nan la demee dañ leen di fay képp ku lekk xaalisu góor jigéen nag yàlla nga koy layoon du yàq Aziz Dabala de du yàq Waly de yow ak yàlla la. dama ne Seneweb mësul fen li Seneweb wax nii dëgg bu wér peng la waaye Aziz Dabala du góor jigéen bu leen jaawale loo xamante ne bokkul Aziz Dabala du góor jigéen Waly Balde du góor jigéen ah ci samay information xawma nag parce que dëddu nañ àdduna te mënuñoo layal seen bopp mais man li ma xam mooy duñu ay borom ñaari tur waaye ñi nga xamante ne ñooy góor jigéen yi nekk ci internet bi di live góor jigéen bi nekk Amérique moo leen di jox xaalis ci suuf pour ñi wax ne que li Seneweb wax du dëgg li Seneweb wax dëgg bu wér péng la amul dara loo xamante ne ay sos la si li Seneweb wax instant bii dañoo bëgg jaxase Aziz Dabala ak sénégalais yi pour retournement de situation am pour ñun ñu dem attaquer Aziz wala sulli Aziz wala di yàq deru Aziz bu leen jaawale lu bokkul ki ñu war a sulli taal ko wala ki ñu war a taal mooy góor jigéen bi nekk Amérique kooku moo yelloo taal. bu leen nangu mukk ñu leen di jaxase ak Aziz Dabala jamais Aziz julli la xamoon julli waxtu Pikine yëpp a ko seedeel mën a julleem baaxam te ñëpp seedeel nañ ne ko du borom ñaari tur waaye ñi ko rey ñi ko rey ay borom ñaari leen ma bu baax ñi ko rey ay borom ñaari tur lañ ñi ko rey ay borom ñaari tur lañ moom papa naa Amérique papa naa bi fu nekk yéen a ko fay gis live bu nekk ma ngi fay wër di fen rek di duul rek bëgg ñu nëpp nëppal affaire góor jigéen bi gis ngeen tamit beneen góor jigéen bu nekk Allemagne def si vidéo naan Seneweb day fen moom mooy duul mais Seneweb fenul billaahi wallaahi wataalaahi Seneweb fenul Seneweb dëgg kese la wax mbir mi dafa lax dafa rax affaire góor jigéen mbir mi dafa rax affaire góor jigéen man góor jigéen yi ngeen di may doole man ñooñu laa munu loolu laa mënut a comprendre en fait góor jigéen yi ngeen di may importance ak doole te góor jigéen boobu mosoo leen koo gis mu wax lu baax ci Sénégal jamais góor jigéenu Amérique bi mosoo leen ko dégg mu wax lu baax ci waa Sénégal nee na dafa bañ sénégalais yi te àdduna du neex bu mu bëgg sénégalais yi moom gambien yi la bëgg. merci beaucoup ci euh, cadeau bi. góor jigéenu Amérique bi nee na moom àdduna du neex nee na moom àdduna du neex ba mu bëgg sénégalais depuis ci suba nalawul nee na moom gambien la nee na moom dootul sénégalais suur na sénégalais yi gis nga daaw papa naa ak Aziz dabalaa ak papa euh, kii nu mu tudd sax ñafal ñafal ña woon ca gàmbi te papa naa Amérique nee na bu mu gëjee gis Aziz yàgg na te day fen képp kuy protéger góor jigéen ci affaire bi góor jigéen nga loolu man maa la ko wax li ma leen waxoon lépp ngeen gis benn par benn amul lenn loo xamante ne wax naa leen ko ci cas bi te gisoo leen ko ba may wax mbiru góor jigéen mosoo leen yaakaar ni que Seneweb dina ko wax déglu ngeen papaanaa Allemagne góor jigéen bu ndaw bi muy attaqué waa Seneweb ne Seneweb dañuy fen Seneweb waxuñu dëgg Seneweb lii Seneweb lële dugg na fii génn na fii xaaral góor jigéen bi nekk euh, almaañ mi ngi attaqué waa Seneweb naan góor jigéen ñi waxuñu dëgg lan moo tax ñuy sosal Aziz da kenn sosalul Aziz Dabala bàyyil duul kenn sosalul Aziz Dabala Aziz Dabala kenn du seetaan nit di ko sosal ci Sénégal ki la fay pour nga attaqué waa Seneweb yéen ñaar ñëpp ay góor jigéen ngeen te Seneweb li mu wax amul lenn loo xamante ne ay fen la te cas bi dina gën a daas ndax à tout moment audio mën naa génn te audio bu génnee yooxu dina ay ay audio bu génnee dina ñaaw de audio bu génnee dina mos de kii di papa naa Amérique ak papa naa ñafal ñafal ci biir lobby bi lañ nekk man nag tudduma turu kenn naa ñafal ñafal ak papa naa gisante nañ daaw Gàmbi lépp Gàmbi lay xewee xam nga yi ñuy def Gàmbi sax ñu ko def Sénégal kon ñu taal leen ba ñu jeex ba ñu fekkee yàmbaa ci biir kër gi fekkat nañ fa yeneen yoo xamante ne xam naa ne polis rus na ko sax wax te xam naa ne loolu du ci yegg du ko wax mais Aziz kenn tuumaalu ko nekk góor jigéen la wax dëgg fa yàlla kenn waxul ne góor jigéen la ki ñu auditionné mu ne dafa rey Aziz génn gisanteeg Waali ne ko yow góor jigéen ga rey ko loolu yéen est-ce que yendu na maana dama leen di laaj rek loolu est-ce que yendu na maana nit defu la dara nga xool ko ba mu neex ba mu neex la nga mu takk ay écouteurs am di déglu musique parce que dafa am ñi nekk ci ginnaaw dafa am ñu muy protéger ñu nekk ci ginnaaw gis nga camp affaire bi dañoo nekk ci campagne électorale instant bi ku nekk fi nga mënee rek foofu ngay waxee ñii ñu ngi live papaanaa Amérique mi ngi wër ci live yi live bu mu gis ne que live boobu am na doole rek daf dem tapote leen gars yi live bu mu gis ne que live boobu am na doole rek dafay dem commencé naan mbir yi du mbiru góor jigéen dugg na fii génn na fii laaj leen papaanaa Amérique kan mooy dugal xaalis bi senegal ci góor jigéen yi ndaw yi kan mooy financé góor jigéen ñu ndaw ñi. pana Amérique nee na man dama ko masa woo di ko ñaan xaalis dèjà man yoruma numéro te man Sénégal Ndiaye xamee nañ ma diñ diñ boo xamante ne duma ñaan du ma ñaan jamais waxantuma laa góor jigéen nag di ñaan góor jigéen la ilaha illallah yow man damaa diñ de am fulla am fayda am personnalité ci sama bopp ñépp xamee nañ la mën sos ak mën duul mais boobu moom jàllul mun nga munoon nga wax leneen yow xamoon nga ne dil bi bu ma ci duggee dinaa la kalaateel ba Sénégal njaay yëpp xam ne yow yaay financé góor jigéeni ndaw yi nekk Sénégal te gis nga ku ci moytuwul sa doom bu amee bu amee vingt cinq sax del vérifier téléphone ndax papa naa Amérique lay message di leen ceebal ci suuf ñoom ñëpp lay message di leen ceebal ci suuf muy maçon beeg kulekat beeg jàmbkat beeg puskatu brouette baag bàyyiwul kenn <laughs> gaa bi dafa dans suba réew mi dafa nar a yëngu xam ngeen lu yëngu suba réew mi si boppam moo nar a wàcc ba zéro xam leen ni te jàpp leen ni que Seneweb fenuñu fenluwuñu loolu faw ngeen dugal ko seen bopp instant bi campagne de destabilisation ci Seneweb lañ nekk pour jaxase Seneweb ak sénégalais yi nga xam ne Seneweb lu mu waxati ñëpp dañuy naan ah kii de ñëpp ne woon nañ day fen fenul de Seneweb mosul fen day leer rek jamono jii ñoom ñëpp dañoo jëf ñoom ñëpp a ngi wax affaire góor jigéen moo nekk loo xamante ne dafa sensible dafa sensible torop torop torop torop torop torop sax parce que lépp a ngi ci biir lépp a ngi ci biir dafa di dafa génn àjjun àdduna te dafa gaañu xamal lu ma ko su dee góor jigéen ak su dul góor jigéen man loolu sama yoon nekku ci yéen may dégg parce que ku ma vaar lay bañ parce que dafa am ñu nekk di ma sitaan ñoo xamante ne ay mag lañ bàyyi ñëpp di ma sitaan man di ma topp donc munu leen wax loo xam ne suba dañ may vaar en tout cas daal ñi ma xam te leer ma ne que ay góor jigéen lañ mooy ñiy dund instant bi te ñi nga xamante ne ñoo def ñaaw ñaawteef bi waaye leneen. man sama yoon nekku ci parce que ku dee kenn lu wax ci moom lu ñaaw lu rafet kase lañuy wax ci moom yéen may dégg góor jigéen ñi nag ñu ngi jëfru ñu ngi protéger lu nekk ñu ngi koy wax lu nekk ñu ngi koy def kuy góor jigéen ci ñi dee sama yoon nekku ci dëgg fa neex yàlla ku ma vaar lay bañ parce que à tout moment audio mun naa génn wala leneen ak leneen génn ñu ne ma kaay yaa fi waxoon lii donc lii noo koy layalee donc sama yoon nekku ci dëgg fa neex yàlla xaw ma ci daara xaw ma ci lu bari yéen a ngi dégg xaw ci lu bari ndax ku ma vaar lay bañ ku ma vaar laay bañ ñi dee yàlla na leen yàlla xaaree aljana xaw ma ndax ay góor jigéen lañ xaw ma ndax duñu ay góor jigéen leeru ma leeru ma de wallaahi leeru ma <laughs> dañuy waxante dëgg rekk sama yoon nekku ci sama yoon nekku ci xaw ma ci xaw ma ci lu bari xaw ma ci lu bari non dama dama dama dama dama wuyu léegi yéen a may dégg te ku ma vaar lay bañ munu ma ne kii du lii kii du lii suba dara am dégg nga suba dara xew ñu ne ma kaay yaa fi waxoon lii ku dee lu rafet rek lu wax dëgg fa neex yàlla lu rafet rek la ñuy wax la ñuy mën a wax ci moom kuy góor jigéen ak ku dul góor jigéen te nga génn àdduna man loolu intéressé tu ma sama yoon nekku ci ba suba ba ba ñuy génnee leneen mais ñi nga xamante ne def nañ jëf ji te ñu ngi dund wax loo xam boo tëddee dangay nelaw ñi def jëf ji daal leer na ma ba leer yàlla ne ka ay góor jigéen lañ affaire bi nag dafa louche te man am na yenn yoo xam ne sañu ma koo wax te mënu ma koo wax dañuy waxante dëgg rek te yàlla rek tax reculer rek pour mieux sauter samp rek wax loo xam